li moo tax boo ñëwee di jooyi tànk yi métteeg wala ndigg lu métti. booy xam nga duñ la may dara dañ naan waa bi mu dugal ndeysaan kon nag euh, coach ñu di la jaajëfal bu baax a baax saa soo ñëwee rek man damay kontaan. Mhm. parce que li ngay indi dafay am solo. Mhm. Euh, c'est euh, le sport dafa nekk accompagnant dundu doomu aadama bu essentiel parce que gis nga déjà rek booy sport dañ lay wax li nga war a lekk mhm. donc sa alimentation day daal di sa alimentation bu sain yooyu tamit da ngay yer sa biir donc lekk naka su dul noonu. on dit un esprit sain dans, dans un, un corps, corps sain. c'est le sport pour le faire. mais dans un endroit sain. Mm-hmm. aussi c'est important. Ah. macha allah Ahmed moom ki njëkk def sport mën nañ ne moom la. parce que sport bi njëkk xam nga la ci li ñuy wax nii javelot. mooy bi ñu daan tàggat seen bopp di def xeec. Mm-hmm. xeec di sànni di sànni xeec foofu la javelot jógee. mooy pétanque non non pétanque c'est des boules mais javelot dinañ ci ñëw. ah instrument la engin la bu athlétisme dafa mel ni flèche athlète yi moom la ñu utiliser sangu bu tedd moom la daan def. ak yéeg fas. est-ce que xam ne ni tubaab yi lépp dañ koo jël ci. non ci ci ci arabe yi jël ko ci africain yi. lépp non lépp mi lépp mu ngi ci. te yéeg fas. Mhm. secret bu garaaw keroog ree naa leen ba sonn nag ci yontu yàlla Moussa su ma turandoo boobu xam nga kattan bi mu amoon kattanu dix personnes. <laughs> wallaay wala cent personnes Moussa moom kese moom la moom la amoon mm-hmm. Ahmed mu koy wax bi mu ñëwee ci teen bi mm-hmm. teen bi ñu bokk ko ubbi ñaari soxna yi munuñ ko mm-hmm. dix góor yi def cent kilos ñoo koy ubbi yoon jàll Moussa rek moo ko yëkkati moom kattan la dafa amoon kattan donc wéral góor ak liy jox góor kattan ma jox la astuce boobu nga yóbbaale waaw <laughs> ñu dem équitation nañ dem équitation donc vraiment di am contentement ak métier di ñëw tout le temps di leen servir ci euh, suba teel ak fitness bi incha allah samedi ñu indi leen deuxième partie bu culturisme bi ñu continuer toujours ak sunu frère Sidi Pouy incha allah ñu di la jaajëfal di la dig daje samedi incha allah rabbi kon nag ci noonu la ñuy daal di jàll rek ci suñu revue des titres www.mikeys.com macha allah ñu di la di la nuyu kilifa gi waaw ñu ngi complimenté c'est beau parce que en général euh, on voit ça chez les femmes où euh, on voit plus souvent góor mooy complimenté mais góor a góor bu toog sa chemise bi rafet na c'est élégant c'est euh, élégant loolu man awma sentiment wu je il mhm. porte une belle chemise. Mhm. il dit Ahmed t'as une belle chemise. non mais c'est ne serait-ce là t'es beau c'est pour ça que je souhaite le dire à voix haute pour que eh. d'autres le copient <laughs> ce n'est pas à titre euh, peut-être personnel. Ah. Euh, ou ouais maam si dina ne naa bàyyi tubaab bi tubaab bi tey ma kaa bàyyi. mbaax mbaax yaatu teranga wallaay waaw mbaax loolu mbaax la ci xol lay nekk. Ah. boo gisee lu rafet rek. te moom nag daa yaatu daa yaatu baax <laughs> léegi rek léegi la tele yu bari rek ak rajo yi effectivement mais kii dafa nekkoon joololi di liggéey gi sunduur Fassane Seck mi si si ñoom xam nañ ko ku nekk bëggoon toog ak moom billaay mhm. wallaay waaw c'est vrai ba guddiñ toll nii moo ne li ma dend ak moom nii gisoo damay damay tafu yi pour mu may laal nii quoi pour ma demee wax suñu wàkk ne maag Fassane ñoo dend waaw waaw moom dañoo yàgg moom dañoo yàgg. ndeysaan moom dañoo yàgg. Chérif Chérif Aïdara. c'est un rêve. qui mmh. devient réalité non non benn complexe. Mmh. sunu nit bu dëkk ci gox. wala kàngam wala ku ku mag. dañ lay gis bëgg la xeeb duñ lay jox sa yéeguwaay. comme ni ko waxee da ngay bëgg nit ndax nit. xam nga boo xoolee gën a gis sax Sadio Mané li ko gën a perte le ballon d'or bokk na ci parce que Sénégal mooy xeeb star. Mm. waaw dañuy am na nekk géej waay di def lu rëy. ñu xam ne am na doom géej yóbbu na géej waay. mais pourquoi pas fu ñu ko gis dañ ko war a yëkkati. wallaay dëgg la loolu mooy loolu mooy mooy mooy ñàkk ki ñàkk la nañu bàyyi di suufeel nit yi. wallaay man daal dama sànni kii rek may jël si expérience bi da def ni man Kobe Bryant nu mu doon def ak doomam di. on partage waaw ba pare ba pare challenge bi dafa ngande. s'exprime bien en français. et extrêmement bien wolof. belle plume hmm? vraiment wolof bi. Oh, macha allah allah quoi mais coupe d'Afrique moom coupe d'Afrique ko bëggee gagné télé laay wax nañ ko ñëw seet si du moom de ah. non dëgg du moom nekkul ne affaire xam-xam de ah. hmm. euh, Matar xam na. Euh, man xam naa. Ah. kii xam na njabootu. xam nañu. daal wax na ma dëgg la. xam nga àq. gis nga àq baaxul. Mm-hmm. déggoo ma de. Mm-hmm. coach. wallaahi. gis nga. wallaahi baaxul. jànq yi bare fii. Mhm. Mhm. gardien yi. Mhm. ba ci xale yi raxas suñu oto yi ci mbedd bi. léeg-léeg yàlla jël ci kenn koo xam ne mbootu kër gi ci moom la ko def. nga koy xeeb. amee doguma la pourquoi yow dama remarqué ngay fixé ñooñu da nga bàyyi xel lu trop macha allah man dama remarqué loolu su ma bàyyi laataa moo faatu daf ma ne woon fexeel bis bu ne. nit ñi nii ñuy toogee sa kër nii. Mm. ñu fi toog rek dafay waxtaanee Cherif. Mm. gis nga kër gu mag ni mu mel. man ne ko waa ah, gis naa koy. Mm-hmm. bu la ci dara jëlee. coach su da am juróom-benni xarit. Mm-hmm. bis bu nekk sa kër lañuy ñëw. Mm-hmm. bu ñu ndekkee ba pare xëy. waaw. añ yéen ñëpp ngeen daje ma ñu ne mbër maa ngi jógee rajo ba di ñëw ñu daje. ñu añ. reer mbër ma jógee na école mi ngi ñëw fekk ñoo wàcc nañ ñu daje. Mm-hmm. yow Ahmed dara ngay fayeeku cent mille francs mm-hmm. parce que yàlla gémmiñ gu mu xar mm-hmm. dugal ci dund barke ñoom juróom-benn yooyu nag xam nga yàlla du wàccee ay dix mille francs noonu rek biñ na ko def ca Moussa Dia biñ na ko defal kiraama te muy taw ay mburu dix mille francs yi ak yow sa teraanga ci loxo jaam yi la koy jaarale ah, ñun suñu teraanga ji mu koy jaarale ci loxo bugaan muy ñëw bugaan teraangam ñi mu koy jaay ci ay affaire publicité muy ñëw ci moom benn dix mille wàcc ci poosu bugaan directement déggoo déedéet dégg nga. Mm-hmm. bu ko defee nag juróom-benn yooyu nga xam ne dañoo nekk sa kër yow di fa lekk. suba ngoon guddeeg bëccëg naan ataay toog waxtaan. bu dee ñu ñibbi. Mm-hmm. ñooñu li ñu war a lekk yépp yàlla sa loxo la koy jaarale. est-ce que fekk man cent mille laay fay bu paase la. Mm-hmm. dëgg la. te ñoom tamit ku ci nekk cent mille nga war di lekk. ba trente jours yi ma borom bi seen cent mille yépp yow sa loxo la ko jaarale. parce que fa la ñu lekk. effectivement waa six cent plus sama cent mille du sept cent mille. déggoo ma de. 700000. Mhm. Mhm. yàlla dina ko wàccee ci man. Mhm. jaaree ko ci ay publicité fii. bugaan léeg-léeg mu jekki jékki gaayen jooni jooni la lii. léeg-léeg kot su gaayen romb la may la te. mois bi balaa jeex dinaa téye 700000. dégg nga loolu. est que yaa ngi may bàyyi xel bu baax a baax. may comprendre may doxal. yor oto. yor kilim gàlle. <laughs> di fay ko. damay jékki-jékki benn jour. madame seytaane dugg ko. fekk mu mën ma nag moom madame. man nopp ko lool mu xëy ne daal ñoom paasan moom temps yi moom xam naa ne moom. mu rek ñëw fii nekk ci biir kër gi suba ngoon bu dégg ba ca nekkee <laughs> eh, di nelaw ja dàq leen Moussa gis boppam ne mbër man daal temps yi madame dafa xaw a soppeeku quoi. vraiment il faut moom. waaw naa ko xëy guddi bu gaayen bi ñëwee ñu ñëw. waaw euh. Moussa paasan jékki-jékki ne ah man de xanaa ndékki li bu may xëy de mais pour añ bi moom mbër man moom vraiment bàyyil may gérer sama kër quoi parce que démb ni mu ñu tegalee añ bi fii mm-hmm. nii la gars di def di ko def di ko def di ko def ba mu koo koy ami ah, ah, ah, d'enfance am bi noonu du ko mës a bàyyi ma dem poussé ko ba mu dem mm-hmm. yow nag yow beew jàpp na la waaye bàyyi leen ñu dem waaye bàyyi leen ñu dem ñoo fi doon toog di lekk de mm-hmm. doon fekkiwu ma leen de añ réer ndékki maa leen ko doon jox eh? Eh, da ngay jékki-jékki nag weer wa ñëw weer wa ñëwaat sa salaire bi la buggaan di jox cent mille francs la gars yi ñoom dem nañu seen. li ñu dañuy lekk ñoom. wallaay weeru dañ koy lekk ala kulli ali. yàlla doon ko jaarale sa loxo. Mhm. ñoom moom dem nañ yóbbu nañ six yi léegi cent la dese. kilim bi day jékki-jékki paan. chéri temps yi néeg bi tàng na de ñett fan yëpp kilim bi ni mu nga ne quoi man dama ko tali yow ma fayee soixante quinze mille franc gars yi suñu ñaari néegi. yi temps yi yi dafa dëgër. presque toog naa lu ma 17 jours nga aw ma publicité. et puis buggaan dafa mel ni ku ma dikkaleel léegi yéen. waa ñi la daan dimbali waaye gisuma kenn koo woo du la jël ñe. effectivement oto ba jékki-jékki paan. tumuraan nga commencé laal taxi. wallaay jékki-jékki sa commencé laal ca tataay affaire bii dëgër cent mille franc yi lu yàlla xam doy na balaa mu jeex. déggoo ma de. si parce que ñay dajee bar ku ci nekk ànd na barke ku ci am jànk mu nekk ci biir kër gi ndekete mbóot mi moom la moom la wallaay wala yoom gardien mu nekk ci biir kër gi wallaay yàlla ne lii taal kër gi diw la dëgg la mm-hmm. moo tax suñu patron yi revenir sur terre rek mm-hmm. da ngay yor sa benn employé di ko xeeb mm-hmm. di ko soofantal mu ne ñul met bàyyi sa télé bi ne mëbëx nga naan lii lan la benn départ la am moo tax loolu ñuy wax naan ay xawma euh, c'est le support qui est la star <laughs> et non les journalistes ou les animateurs c'est archi faux dégg loolu amul de parce que fii àdduna du yàgg ba buggaan teg fi ay ginaar wala ay bëy euh. ay ñoom Yacine bu ñu bàyyee mais ñaata nit fi jógee am na ñoo xam ne dañ fiy jógee sa kër gi ne mëbb mm. parce que fii doo fi indi xar doo fi indi ginaar mm. nit ñee fi ne ku ci nekk nag ak mbóot mi yàlla def ci yow yow daal jàppal rek di toppatoo jàppal di toppatoo macha allah jërëjëf wax dëgg kenn di toppatoo wax dëgg kenn leçon jàppal di toppatoo c'est une excellente leçon internet yaa ngi naan sax nag saa balaa ñu commencé waaw waaw yaa dama xam njariñam dama xam ba di taan bi ñëw 7h30 ba tey lu ma métti nit ñi dañ koy laajte naan ma sa yaas ma